Babacar Gaye euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. voilà Babacar Gaye nga nekk secrétaire général bu syndicat unique euh, des travailleurs euh, du rail ñu lay laaj li nga xamante ni moom mooy chemin de fer ban importance la am fii ci Sénégal. oui semaine de fer importance bi mu am soxna si dafa rëy dafay rëy yaatu parce que tey bu nu xoolee Sénégal li mu am yëpp ci ay mébét ci wàllum yokk pooru Dakar maintenant ñuy wax pooru Ndayane bi wax pooru Sendou et cetera yooyu yëpp suñ ko bëggee defaraat ça veut dire on pense à augmenter capacité d'accueil bi nga xam ni moom la Sénégal di jot ci transit euh, maritime bi donc loolu lépp nax soo ko bëggee yokk ba pare te amul leneen lu koy jottali euh, su dikkee pooru Dakar di facilité relais bi donc damay jàpp ni problème dafay am te nax en matière de transport de masse euh, train moo ci gën a approprié pour maintenant assurer continuité bateau bi donc bu bateau bi ñëwee ci naka parce que il faut savoir que Sénégal particularité mooy intérieur u pays bi non seulement am nan ay production yoo xam ni assez importante yoo xam ni mën na saxaar moo koy yóbbu lu demee ni phosphate yeeg zircon yeeg fer beeg yooyu yëpp sans compter aussi production bi jóge Casamance avec nouvelle ligne yi nga xam ni mébét nañ ko ci chemin de fer tënk ko ci donc yooyu intérieur u pays boobu rek on a assez de euh, de production boo xam ni raay day euh, day soxla njëriñu raay boo ci doolee nag situation géographique Mali nga xam ni Mali dafa nekk pays boo xam ni amul port lu ëpp ci transitam di jaar par le port de Dakar donc dafay gën a dolli Sénégal euh, euh, opportunité pour war a développer saxaar ci biirum réewam parce que tey boo xoolee camion yi nga xam ni ñooy daw ci tali bi bay poser maintenant le problème des accidents yi ci ëpp nag bu accident bu fi am rek dañ naan la oto bi camion la dajeel wala da doon moytu camion bi et cetera yooyu yëpp boo ko xoolee donc su chemin de faire joxe waatoon xar kanam gën xamoon ci moom donc ñun ñëpp xam na ni camion yi daw ci tali bi dinañ wàññeeko bu baax a baax a baax te suñu wàññeekoo non seulement dinañ wàññi accident yi wàññi aussi embouteillage yi am diggante Dakar euh, côté Diamniadio bi bu ñuy génn noonu di dem Mali mais aussi euh, épargner investissement yi ñuy def ci sunu tali yi année bu nekk ñu def ci ay investissement euh, yi gros porteurs yi di ko tojaat donc loolu lépp daal soo ko xoolee da ngay xam ni ñun yàlla daf ñoo jagleel ay euh, opportunité yoo xam ni chemin de faire moom mënul ñàkk sunum réew donc nax ñuy xam ni am na programme buñ fi tënk naam boo xam ni ambitieux na def na am na lu ñuy wan ci ni suñ ko demee ba réaliser ko dina ñu ko indil ci wàllum euh, développement dina ñu permettre ñuy transporter marchandise fret bu bari lu tolloog vingt quatre mille tonnes euh, millions de tonnes par an ñu ni su lu ëpp ci soixante quinze pour cent sunu territoire national dinañ ko desservir par le chemin de fer lu ëpp trente mille camions dinañ ko wàññi ci tali bi lu mat cent quatre vingt mille emplois dinañ ko créer donc loolu euh, njëriñam kenn xamul fu mu yem donc nax ñuy wax ni projet yooyu na lu koy gën a faciliter mooy régler les petits détails yi nga xam ni ñoo nekk ak actuellement ci secteur ferroviaire bi donc ba encourager aussi financement yi ñu mën a dugg ci ba nga xam ni Sénégal dina mën a retrouver waat chemin de fer ba nga xam ni moom la fi nit ñi xamoon démb ak barke démb. voilà euh, tey jii loolu la njiitu réew mi daal di bëgg relancer li nga xam ni mooy chemin de fer yi euh, fii ci Sénégal naka nga gisee euh, initiative bu njiitu réew mi. waaw loolu dama cheminots yëpp comme ni ma ko rafetloo loolu lan ko rafetloowee parce que dañ comme niñ koy faral di waxee rek ndimbal na ca fekk loxol boroom xam nga programme bi état Sénégal tënk weesu na li nga xam ne moom la ñuy débuté parce que vingt milliards la ñuy débuté pour remettre à niveau l'état de la voie donc pour préparer maintenant ndax au grand au projet bi nga xam ni mooy réhabiliter toutes les voies à neuf euh, mettre ko dans des standards internationaux de, euh, dans des normes internationales donc ci loolu su démarré ak loolu dafay jox ñeneen ñi nga xam ni am nañ euh, mébétu dugal ay investi seen xaalis ci chemin de fer ñu gën a sawar parce que dañuy xam ni kon Sénégal kat moo ngi favoriser di faciliter euh, investir euh, investir sur le chemin de fer donc ndax kon su njiitu réew mi commencé pour njëkk a teg jéego vers cette réhabilitation mënuñu def lu koy lu dul di ko rafetlu tout en sachant que ni na bëggul ni lii ñuy def rek nii ci lay yem maintenant nax li ñuy xalaat aussi ci lool li ñuy wax aussi ci lool rek di ci soññee mooy. Mm-hmm. bu commencé moom su ko une fois mu lancé ko rek mu bañ a yem ci lancement bi. Mm-hmm. que les travaux suivent sans arrêt une fois que chef de l'État jóge Thiès. ñu gis dans les semaines à semaines à venir que liggéey baa ngi démarrer ñoo ngi démarrer chantier yi parce que ndax wax dëgg yàlla attente bi yàgg na te bu commencé ñuy def ay promesses yoo xam ni réaliser wul rek dafay décourager loowaat acteurs yi te pour euh, comme actuellement cheminots yëpp jug nañ taxaw collaborer ak euh, accompagner le chef de l'État dans dans sa politique ferroviaire taxawu pour jàppale ko pour li mu mébé namm ci chemin de fer mu àgg ca kon nax dama jàpp ni waruñoo toogaat bay tàyyaloo waat yooyu acteur ferroviaire donc la may waxaat ni rek on espère que cette fois-ci une fois que le lancement soit fait mu bañ a amaat beneen arrêt travaux yi ñu démarrer ba nga xam ni kat mën nanoo dinañ amaat yaakaar ni ci lu yàggatul dara kon li chemin de fer dina joxe joxewaat xar kanam gu yees. Euh, léegi euh, ñu laaj la en tant que cheminot euh, Babacar Gaye naka nga gisee train express régional. waaw train express régional ñun dañ ko yàgg wax ni mënuñu ko bañ. parce que njëriñ njëriñu train. Euh, de voyageurs doo ko xool rek ci li muy indi ci wàllum koppar ci jaayum ticket yooyu mais da ngay xool ci li muy indi si njëriñ ci wàllum mobilité population xam nga tey bu fekkee ne Sénégal dafa créer euh, nouvelle ville de Diamniadio def fa zone industrielle def fa euh, ay infrastructure notamment avec Stade Sénégal avec. Euh, sphère ministérielle ya fa nekk l'aéroport AIBD bu Diass yooyu yëpp su nekkee ne defar nañ ko en terme de délocalisation et d'infrastructure aussi ñu def ko ba pare amul moyen de transport buy jottali nit ñi foofa facilement et confortablement donc damay jàpp ni wax dëgg yàlla lan fay defar yëpp doo am benn njëriñ te nag moo tax nit yi aussi waruñu jàpp rek ni lu génnewul xaalis ban ca def rek baaxul mais nit lenn dina génne xaalis ci beneeni anam en facilitant réduisant les embouteillages et autres parce que des fois ñu chiffrer embouteillages y ci perte yu muy jural réew mi loo xam ne tamit ay milliards yi milliards la donc loolu tamit mën nga ko rattacher au à l'importance du train express régional parce que dina am lum ci wàññi lu important comme ni BRT BRT bi demee ni muy tamit apporter cette assistance euh, euh, sur difficulté yi nga xam ni moom la population dakarois yi di jànkonteel en terme de déplacement donc ñooñu soo bëggee seen njëriñ nga yemale ko rek ci li ñuy indi ci njaayum ticket mi wax dëgg yàlla damay jàpp ni da ngay manquer de vision et d'objectivité donc nag suñuy analyse ci train express régional ak yeneen infrastructure yi nan koy gën a xóotal ba duñ ko yemalee rek ci li muy indi ci njaayum tike moo wala moo ngi mel ni tey hôpital hmm. un hôpital public hôpital public tey soo bëggee ni danu ko war a def ba nga xam ni day jaay ticket yoo xam day génne li fay médecin yi ak liy génne yépp mais da population bi donc train express régional c'est pareil donc tamit suñ bëggoon a génn njëriñ li ci njaayum ticket mi dañuy rey euh, population bi te jàpp naa ni mission état c'est de soulager les difficultés des populations mais non pas de les augmenter. Mmh. dernière question rek euh, Babacar Gaye moom mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ni ñiy liggéey ci cheminots yi ci chemin de fer yi plutôt dañ koy jànkonteel ci tënk rek lan la. waaw léegi rek mooy loolu ñu doon waxta jafe-jafe yooyu yaakaar naa ni liñ ko waxee rek résoudre ko day bokk ci liy facilité même investissement yi war a topp ci projet de remise à niveau de la voie bi ñu war a def de Dakar à Tamba xam nga tey jii bu fekkee ni euh, comme niñ ko waxee rek ñun on a toujours compris la vision du chef de l'État di ko accompagner nag fas yéene nag def ci tout notre possible ba lim ci mébét yëpp mu jot ci waaye comme nin ko waxee benn jafe-jafe yi nga xam ni moo fi ne mooy rek ñu régler benn partie ci passif sociale bi nga xam ne li ci ëpp wàllum non reversement des cotisations à l'IPRES la beneen bi ci topp mooy ñu euh, régulariser la situation administrative des Dakar des travailleurs de Dakar Bamako ferroviaire euh, donc parce que depuis ba nu abrogé DBF en deux mille vingt kenn joxagu leen euh, une intégration dans la nouvelle entité qui est les chemins de fer du Sénégal donc loolu nag nekk benn vraiment traumatisme si bopp liggéeykat yi malgré que ni ils ont toujours collaboré et accompagné le chef de l'État dans sa politique ferroviaire waaye nag ñu am yaakaar ni incha allah une fois que les travaux de lancement là seront faits le chef de l'État va encore manifester Euh, son sens de solidarité et aussi bi mu mës wan liggéeykat yi muy cheminots yi parce que sur beneen aspect il faut dire que ni malgré les difficultés Uh, bon musuñu nekk mu ñuy seetaan ci ari amaguñu arriéré de salaire comme des fois ni muy amee ci yeneen secteurs yi kon nag ñuy jàpp ni président comme option la woon aussi état Sénégal ni dafa bëgg a dakkal li fi ne woon pour def lu bees ba mu jural ñu li nga xam ni ëppoon sunu activité daa di taxaw muy le transport de fret entre Dakar ko je pense aussi que ni il est de la responsabilité de l'État du Sénégal de nous réintégrer dans une entité appropriée donc pour que kat ñu mën a am tranquillité et un, une assurance sur sunu avenir. merci beaucoup Babacar euh, Gueye euh, Rewmi FM mi ngi lay jëfal ci sa disponibilité. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal yéen waa Rewmi FM yi. voilà may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs du rail. ok merci. du rail. ok merci.